Aliou Cissé jugeegul équipe nationale Sénégal dafa nar a toogaat sénégalais yaa ngi xatraay comme pas possible maa ngi ciy ñëw ñaata durée bi ñaata la salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant Aliou Cissé sunu international sunu coach annoncé woon nañ ko fii dafay démissionné dafay jóge ci équipe nationale Sénégal nag liñ tegoon ci ay euh, kàddu que ni bu yeggul ci dernier carré bi rek li war mooy mu démissionné. may keneen xàllal keneen mais finalement yeggu fa te woon li waroon moo nekkoon loolu mais finalement fédération bi ñoom génn nañ ba annoncé que ni dafay continuer aventure bi ak Sénégal ba 2025 Coupe d'Afrique weesoo ñu a xool mu ngi doone maa ngi gis nag sénégalais yi di xataraay loolu ngi koy gis ci commentaire yi ñu ñu ngi naan dañ dem ba 2025 rek bu ngeen fa deful dara waxuma la ak Aliou Cissé yéen fédération bi ñëpp la ñuy raxas ba ngeen seet jëlee leen fa teg ñeneen ñu bees en cas mu ngi noonu ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee ak ba xam ànd ngeen ci décision boobu ou ngeen bindal ma ko lépp lu ngeen wax rek argumenté leen teg leen ci ay argument que ni lii moo tax ànduma ci lii moo tax ànd naa ceeg yooyu ñu waxtaanee ko teg lépp ci logique mu ngi noonee suñu coach boobee di Aliou Cissé dafa nar a toogaat ak équipe nationale Sénégal ak joueurs yi ba 2025 coupe d' Afrique bi Maroc bu weesoo xamuñu nag la suite nu muy demee espérons ñun ñu jël ko yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def. ah gars yi une bonne nouvelle pour le Sénégal ak kooku di Mikayil Ngor Faye Barça eh, tey nag kontaan naa ci waa Barça ni ñu def sama doom googee gone googee di ancien joueur équipe nationale Sénégal U17 ak U20 ñu naan ko Mikayil Ngor Faye nekkoon ci petite catégorie Barça Barça athlétique bi bokk fa lañ ko aale Barça équipe A bi nag kooki di Xavi convoqué na ko ci équipe première bi ci match boo xam ne tey doon ko war a football contre Mallorca comme défenseur central c'est une bonne nouvelle loolu dañuy bëgg di ko gis nànk-nànk booy bi ñu jëloon teg ko noonu muy wane boppam man jàpp naa ni ëppul talent kooki di Mikayil Ngor Faye ëppul mën naa ni euh, euh, booy bi ma ëppalewul dara loo kooki di Mikayil peut-être temps bi et tout c'est à Michael nag bu amee bépp bépp bépp Fatine ay na ci chance mu exploité ko bañ a bàyyi dara Sénégal yépp ñu sa ginnaaw c'est pas facile ñu gis joueur sénégalais di euh, teg ay pas baax saa wala Rayaal ak ñoom seen club yu mag yi wala ay. Chelsea Liverpool rarement koy gis kon nag bu ñu amee ñuy teg par nank nànk rek dañ koy sante suñu borom kon nag di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fa cat musal ko ci seytaane xamuñu nag tey dina football bokk na ci groupe ko teg si ay yeneeni i match ak yeneen match buy gën di wane boppam lu ne mën naa ne kon nag bon chance et bonne continuation à toi Mikayil Ngor Faye Sénégal bi yëpp ñu sa ginnaaw di la encouragé jaajëf kaay Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Le monde part en couille. Non. Tous sont Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Yaïda. Le monde part en couille. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Yaïda. Le monde part en couille. atravessava do mensagem. É, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est... J'ai eu là. Mais mon parent... Gol! Goal! Oh, hit that ball. Oh, God. Goal! Oh, hit that ball. Oh, God. Goal! Oh, hit that ball. Oh. ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه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 نشيطك والله بتاعتي عن ابو اللي جابك على التليفون كمله كمله سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا عمل فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية